mi ngi nii moo fi am ah. non non non. lii moo fi am gis nga. Et vous parlez de nos autorités, de nos autorités pour qu'elles nous xamante ni rafetul billaa li leen see war a jóg ñun ñun ñun ñun ñun ñu am luñ moomal suñu bopp am na loo xam dafa rafetul xoolal lii nii lii dafa ñaaw naar yaa ngi nii télé duñ màggali am na loo xam dafa rafetul ñoom ñii ñëpp ñu ngi nii ñoo ngi nii bari fi ba xool lii dafa rafetul boos yaa ngi nii si ginnaaw nii téeñu fii nii dégg boobu léegi nii xool leen nii ñii war a màggale ba ay seen yitte xoolal lii lépp lii lii lépp ay Sénégal la war a ñibbi xam nga dafa rafetul billaahi wallaahi taala ñun xamuñu lan la ñuy dund ñun Sénégal actuellement barke alxuraanu karim xamuñu lan la ñuy dund naar yaa ngi nii ñu war a màggale ñu téeñu fi depuis quatre jours am na loo dafa rafetul actuellement kenn xamul lan la ñuy dund ñun kenn xamu ko kenn kenn kenn am na lu ñu métti lool lool lool lool lool billaahi wallaahi taalaahi gaa yaa ngi nii ñun ñëpp billaahi wallaahi taalaahi benn nouvelle information bu am nii gis ko gars yi ñu ngi nii frontière baay bëgg génn mënuñoo dem li tamit métti na ambiance nga xam ne parfois da leen indi passage yi di leen sànni fii frontière bi ngeen bàyyi loolu bàyyi leen loolu gis nga gaa yaa ngi nii bëgg génn mënuñoo fexe ba dem ñi ngi nii bëgg a dem mënuñoo fexe ba dem lii tamit metti na quoi sénégalais yaa ngi fii nii gisoo dañ doon yëngal ba far kenn waaye dafay daanu yesi moo loolu gis nga euh, di wax aussi te fii problème bi différent na ku ci nekk à sa bos am na ñoo xamante ni dañuy dem def seen dëy ah ku ci mel ni man mi di ko wax suma waajuru jigéen làkk na depuis euh, le vingt cinq juillet ak màggal bi aussi tey parce que ay ay ay taalibe lañu euh, te màggal bi ku ne xam ne ni jege na di di di di ñaan rek intervention ku ci mën a jàpp jaarale ko ci rajo bi ñu def li def def dara ba ñun ñu mën a euh, génn fi ñu nekk parce que naar yi ñoom seen bopp nee nañu ambasade bi rek su waxee ñoom ñu bàyyi ñu ñun tey def nañu effort ambassade bi naam naam wax ñu ñu wax guñ nagas kooku dama koy dama koy avoué parce que ni ku dee ak sa bàmmeel waaye it ñoo ngi koy lijjanti defe naa lay dalatul xel waaw ñun moom dala dalatul suñu xel parce que naar yi dañu ñu wax ambassade bi rek suñu yónnee woon message rek ñun ñu bàyyi leen ñu dem donc lu tax ay fan fan ba léegi loolu ah, message rek te dañoo jàll fii te ay fan ñoo ngi fii defe naa kon message boobu bu dee génn na war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax donc ñu ngi ñaan mbokk àdduna bi yëpp rawatina mini ministre des affaires étrangères ay seen i doom ay sénégalais doomu doomu seen i doom sa ay rakkama yi ñoo ngi dund coono fii di jégalu baax a baax a baax a baax lu ci lépp lu ci dëng ngeen xamal ci man la di baalu ak ñëpp waaw jërë ngeen ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan wàllu daal ñoo ngi ñaan wàllu sonn nañu toog waaw dund bi désert bi fi mett na lool te ñun ñëpp Europe lañ jugee ñun ñëpp ñi Italie lañ jugee ñi France lañ jugee ñi ñi Espagne lañ jugee waaw ñi Germanie ñu waaw ak Suisse am nañ jugee Suisse it waaw sonn nañ trop sonn nañ trop sonn nañ trop waaw sonn nañ trop ñii eh, fii daal yéeme na lool lool lool lool parce que xam lan mooy problème bi ñun ñi nga xamante ni dañ France wala Italie wala Espagne marocain yi bàyyi ñu dugg ñu fay suñ constination ci oto yu ndaw ñu ñëw ba fii ñu ne ñu frontière bi ubbeegul du ngeen jàll problème bi foofu la amee lan moo tax ñu bàyyi ñu dugg ba pare ñu fay loo ñu consignation suñu bagage wanee na duñ ko jaay Maroc ñu ñëw ba fronti ba ci frontière war a génn nit ñu ne ñu du ngeen jàll parce que affaire bi ubbiwul loolu il faut que ñun sunu état wax ci parce que même bu dul dara Mauritaniens yi ñoom lijjanti nañ leen seen état ñoom dañuy dugg fi mu ne nii normal dañuy génn normal dañuy dugg normal ñun ñoo am problème boobu en tant que Sénégal Maroc nit ñaa ngi fii sonn fi coono boo xamante ni am na koo xamante ni même bu ñu waxee léegi nii sax mun na mun na génn àdduna duñ ko weddi parce que dafa feebara affaire bu yéeme. Ok, donc euh, je, vais, revenir euh, sur la situation que les Sénégalais ils ont tenté de vivre à Adama. Euh, moi, je suis, bon, je, j'ai quitté le Sénégal pour vers l'Espagne, quoi. que qu'au niveau de 80 km ici, maintenant les autorités, les autorités marocaines, ils prennent les Sénégalais. Au lieu qu'ils viennent jusqu'à la frontière, maintenant on les laisse entre Takmar euh, et Layoun. Là-bas aussi, y a une désert. C'est là qu'on les fait laisser euh, dans, la, dans la brousse, quoi. Je viens de recevoir cette information-là. pardon, Parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il a dit il y a beaucoup de Sénégalais, 40 personnes qui sont là-bas. C'est lui-même qui a pris deux Sénégalais pour les faire mettre dans un, village il l'a laissé ici. Et là-bas, il a continué son chemin. Vraiment, la situation maintenant, euh, on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'on devrait faire. Quoi. Si les autorités des Sénégalais nous, nous entendent, bon, euh, c'est mieux qu'il réagisse euh, rapidement, quoi, vite fait, si c'est possible. Merci. bilaay gis nga kii barki yàlla buñ la waxoon léegi ne la deena buñ woowoon léegi ne deena kenn kenn ko weddi nii may wax ak yow mi ngi ci yóbbu nañ ko hôpital mais amu fa 15 minutes ñu indiwaat ko sànnilaat ñu ko fii mi ngi mi ngi fee ci hôtel bi ñu jël ni fa lañ ko jëlal parce que fii la nekkoon ci restaurant bi ci suuf fii la jëloon néeg mais borom restaurant bi da koo mujj génne wallahi lazim ñi ñi di lu metti di woo ambassade bi ñu toog fa fañ nekk waaw ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci combien de jours yoo xam ne ñi ñaa ngi fi toog war a génn dem seen kër mënuñoo fexe ba def ko di ñu négliger consulat bi boo ko woowee du nangoo jël da nga koy woo téléphone direct ci numéro am du nangoo jël nga woo secrétaire bi jot ko mu ne la mu ne la dem naa ci consul bi nee na mi ngi ci te gisuñu benn résultat boo demee ci commandant bi nekk fii da lay wax ni teg leen pression seen seen ambassade teg leen ko pression parce que bu ngeen ko tegul pression lii ngeen bëgg du ko am mais pression mënut a passé nga woo nit wax ko waxi nit mu xam ni yow mii fa nga jóge dafa sori ñii jóge France ñii jóge Suisse ñii jóge ñii jóge Italie ñii jóge Espagne fu nekk nit jóge fa dajaloo fii boobu ba léegi mënuñoo dem metti na trop